honorable ban gis-gis nga am ci wàllu pétrole bi ak tamit coow li jamono ji daal sénégalais yi lu fi xew ak manifestation yi nga xam opposition yi ñu ngi koy woote demee ni ko aar la ñu bokk loolu en tant que député ban gis-gis nga ci am waaw xam nga euh, mbirum pétrole ak gaz man dama ci xaw a teey euh, tout simplement parce que dama dégg rek euh, ki demb benn professeur di wax que mbirum pétrole bi ak gaz bi ñi ci gën a wax mooy ñi ci gën a ñi ci xamul dara ñi xam pratiquement waxuñu parce que gis nga problème euh, pétrole ak gaz euh, réew mi yëpp ñoo ko bokk euh, te yàlla def na ni depuis indépendance ba léegi ci ñeenti at yi wala ñett at yi la ñu commencé xam ni Sénégal kat am na wala lañ ko découvrir en tout cas gaz ak pétrole. donc muy mbir boo xam ne man dama jàpp ni naam war nañ saytu xool nan lay doxee moo tax. président bi loolu amee dafa créer benn kuréel boo xam ne moom moo toppatoo tout ce qui est pétrole ak gaz boole ci ñëpp nag donc loolu je crois que bu ñu ko defee war nañu teey war nañu teey parce que gis nañu fépp foo xam ne am na pétrole ak gaz généralement day am problème donc ñun nag yàlla def nañ fii am nañ ay kilifa diine yoo xam ne dañ fi def ay ñaan yoo xam ne yàlla euh, gëm naa ni dañ sutural ba nga xam ne problème du am mais que li may fu may wootee Sénégalais yi mooy ñi nekk fii ak ñi nekk ci diaspora bi mooy que ni comme léegi am na accusation yoo xam ne defoon nañ ko fan yi ba nga xam ne euh, comment dirais-je procureur autosaisir na problème bi jël na ko léegi ni ñu bàyyi justice bi def liggéeyam bu génnee résultat bi ñëpp dinañ ko xool teg ci seen bët xool nan lu ñu avancé parce que bu dul loolu wax ju bëri ji man dama jàpp ne ça nous avance pas te surtout ñun tey jii man mi nga xam ne bitim réew laa laa nekk 17 ans. Euh, nekk aux États-Unis gis ni réew développé ni ñu développé parce que man dama jàpp ne gënuñu ñoo muus gënuñu jàng mais li ñuy li ñu euh, rawaree rek mooy que ne lépp lu ñu dawal day nekk ci yoon mais aussi dañu informer nit yi mais aussi que yàlla a le patriotisme la ñu mettre en avant cest à nit ki même bu ngeen bokkul kuréel wala bokku leen idéologie bokku leen parti di ngeen toog waxtaan lii jëmale dëkk bi euh, kanam